mais Tapha nuyu na la. waaw mais sant yàlla maa leen di bëggee di jox seen wàccuwaay di kontaan li ngeen ñëw si suñu dëkk bi Parcelles dafa neex. mais tey Anaconda di bëri si bis solo si la Papa Sow mooy seen jàkkaarloo mbayaar mbayaar mbayaarlu rek. Amet dañ daan ànd di bëri di mbapat ay minuit une heure kenn new kenn duñu ko fekk maa ngi moom ñoo mbapatandoo petit ba gannaaw bërendoo ay paquet de suukar saako ceeb. ñu ñuy fay ay avance ñu dem di bëri di ay wakaam ay darifoor ay yaraax loo sot lañu daan tëgal ay mbabat ay kaaw Cissé kan moom waaw man ak amet anaconda mi barki sëñ Fallou kon tey li koy mooy mu teg bëre bi rek ndax mën na bëre am na fit mën na xeex entraîné na amet bu teyee mbër du ko gaaw a jaaxal lépp a ngi si moom dama koy ñaanal ndam bu seddu guy ndax liñ fi tëgg ni mu neexee yàlla na daan lu gën a neex lool moom ah, a xam ne mooy mbaa ah, kii nee na maa amul fit tàppale dañ koy jiw day jéem a monté xamul lu mu wax. non dafa sibul nag damaa ragal damaa ragal mu am lu ko bett su jàppee ne Anaconda tapet la wala dafa nar ñëw ci wa ko ci ay wax ni boor bi ciblé na gis lu ko bett. Ah. amee li jënd mu sax ba xam mi ngi dund. mais Tapha tool li muy bari bari bari loolu weesu gàmmu koy. waaye dama ne man li ma dugal ci loolu. li ma dugal fii moo si dugal jàmm laa koy ñaanal ñaanal sa bopp jàmm ba bis ba yàlla nañu yàlla may ndam mais saa yi Anaconda moo xew de. waaw mais amateur yi bëri na ni. soppa soppa tey bëri dañuy si ki nga xam ne mooy gàmmu gay moo na benn sopp maa ngi woo ñëpp la 24 décembre. barke Sëñ Fallou maa ngi woo ñëpp yàlla ñu yàlla may ndam du ma ci sori ah. nañu yàlla may jàmm rek bisu le 6 bi rek diggante si dafa baa sow waaw bis bu mag la Siteu yalmin bu jaam a gën la mais ñun parcelle Papa Sow mooy suñu yalmin mbër yëpp mooy suñu kilifa mooy suñu grand kon mooy yalmin bi dëkk bi kon ñaari yalmin ñoo xewle waaw di ñaan yàlla bis bi doon bisu yalmin stade bi fees dell réussite totale pour waa jàmbaar production lamb ji neex yàlla may ñu ndam ñun waa parcelle incha